ayca mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee woon actuellement ñi ngi taxaw ak euh, ku ngeen miin lool mu di honorable député Massata Samb euh, mu di député Pire waaye itam ñu miin ko ci biir yeewi coalition yeewi askan wi euh, bu ko defee dañ koy bàyyi directement rek ci biir waxtaan yi ñu joxe waale suñu première question mu ànd ak présentation bi. ginnaaw bañ leen nuyoo ba noppi tey nga ñëw fii ci euh, champ de course bàyyi lépp loo doon def ñëw euh, teewee liggéey bi nga xam ni moom moo fi am bi nga ñëwee gis ni mu demee ak ni nga xam ne noonu la ko mbokk yi doxale euh, sa yëg-yëg ci bisu tay bi lan la. waaw salaamaaleykum mbokki internet yëpp ñu ngi leen di nuyu di rafet lu liggéey bu rafet bi ngeen di def. waaw tey jii nag ku ñu gis fii foog naa ni du nekkul lu lu bette nekkul loo xam ni guléet la. parce que mbalem course mom moom foog naa ni ban ko dalee def ba léegi yalla ak ñuy baaxee ñun ñu di ko teewee di féké di balé comme ni ñëpp yi défé chaque année ah bu né gàmm nak eh, dafa nekk lo xamni ni guddi Seydina Mouhamad la Serigne Cheikh daan def mbalé course bi eh, daan def eh, gàmm course bi mu joggé fi avant mu fi joggé sax jël ko jox ko Serigne Moustapha ni ko del dem di gàmm course bi ba boobaak léegi macha allah rabbi ñi ngi ñëw diko téwé di teewe mbale mi di teewe gàmm bi nekkul nag loo xam ni euh, lu lu doy waar la ñun dañ fi ñëw en tant que njaboot euh, nga xam ni Serigne Moustapha mooy suñu kilifa euh, moom wootewul sax Serigne Moustapha du woote dem leen bale ji course ba mais moom xam na jàngal na njabootam li nga xam ni moom lañ war a def mooy bu jotee rek ñu ñëw def ko mooy jub nañ gàmm xam nañ ni course bii fii lañ ko war a teer teeroo mm. mu indil ñu yaara sulalaam ju tedd jooju moo tax incha allahu rabbi loolu la loolu la ñu ñëwoon tey pour def ko te gis nga. 10 heures jotagul waaye macha allah gis nga ni ni ni course bi mel. te ku fi daan romb gis nga ni meloon ci ñax ak ci ay mbalit ak taataa ndox. macha allah waaw euh, comme ni nga ko waxee rek euh, def farata euh, comme étant honorable député wala nekk député pur ci biir ci Tivaouane lan lan mën a xaar. ci lu xamanteni dana jógee ci walu PUR ak euh, wala wàllu euh, honorable député Massata Samb jëm ci wàllu gàmm ci préparation yi ci biir si waw xam nga nak, nag. Mhm. euh dafa nek lo xam ni mhm. du yefu politique. Mhm. gamu la moy goudi sayyidina mohammed lan koy lañi lañi lañi ñuy la tey ñun. casquette ay député mm. wala casquette politique dañ mm. koy summi nekk kasketu yor casquette taalibe mm-hmm. waaw lépp nag loo xam ni lu taalibe war a jariñ dëkkam mm-hmm. wala war a jariñ kilifaam mm-hmm. ñun dinañ ci def dinañ ci def lu nu man bu soobee yàlla mooy waajal gàmmu gi teeru gan ñi fexe ba tey ji gan ñi bu ñëwee sa kër ah nga teral leen li nga leen war a terale lépp lo xamni aussi lo xamni luñ mëna def pour gàmm gi mëna am amélioration aussi mhm. dañ koy def bu soba yalla waaw que muy ñuy ci côté politique que muy ci côté njaboot mhm. mais gàmm mom ku ne xam na ni mhm. euh, yëfu diine la vraiment goudi sayyidna mohammed la lépp lu ci njaboot def rek du ko rëcc bu soba yalla euh xerté gi ak détermination bi nga xamanté ni njaboot gi andal nañ ko pour ñew liggéey ci sax lool lan moo ko def si waaw xam nga dañu am ko xamni ni wax dëgg euh Serigne Moustapha du du du du nit du koo xam ni. Mm-hmm. Euh, ku ku nit di cof la. Mm-hmm. Serigne Moustapha njabootam day dem ba doo xam sax ni muy mel ci moom. waaw yow noo ko soppee rek wala noo ko noo ko gëmee rek. Mm-hmm. da ngay gis koo xam ni moo la gën a moo moo la raw fuuf di dem. waaw loolu nag li ko waral mooy dafay yar njabootam. jàngal leen def ci ñoom xam-xam. def ci ñoom njub def ci ñoom sérieux. dema dema dem ba ñi nga xam ni sax duñ ay njabootu mu Moustapha nangu nan ni Serigne Moustapha dafa yar njabootam loolu nag ki nga yar mu gis moroomam xam ni moom yamul ak moroomam kooku ka def ca moom loola du ko yemaleeg dara ñun moro Serigne Moustapha duñ ko yemaleeg dara ndax nu nu mën a mel rek daanaka moo ko def ci ñun kon loolu moo waral xérte gi loolu nag ñëpp dañu koy nangul rek te xam ni dañoo amul koo xam ni wax dëgg yàlla euh, amunu daal kudul moom amuñu ku dul moom moo tax moo tax xerte gi moom day yokk rek chaque jour day yokk rek te guddi gàmm sax di ci xam dara mhm. wala bu dee accueil am na mhm. di ci xam dara bu sëñ tàllalee loxo bi mhm. da ngay gis nit ñi di daanu di xëm ah, waaw loolu yàlla moo la nga joxe sa kàddu gu mujj sa tàggoog mbokk internet yi ñuy waaw sant rek di leen sant di wax ni rek vraiment liggéey bu ama am solo ngeen di def wax dëgg yàlla parce que lu mel nii mm. ñi nga xam ni amuñu possibilité ñëw fekke ko mm. ngeen fexe ba fa ñu toog ñu koy seetaan en direct loolu duñ def lu di leen sant mm. di leen ñaanal yàlla ngeen dem ba am ay télévision yoo xam ni yu monde entier bi yëpp reconnaître incha allah waaw kay jërëjëf jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup